mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo réew mi fm 97.5 ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi seen émission gox bi ci dibéer gi di dalal Seydina Issa Laye Samb di responsable des jeunes de taxawu Sénégal bu Dakar naka noonu sax nekk candidat ca mairie bu Yoff ponk yi ñu war a waxtaanee bëri na rawatina jafe-jafe yi askan ba yeewoo ca Yoff di jànkonteel muy ab euh, bërëb yi nga xam ne daal ndaw yi mën nañ fa tàggatoo rawatina sax jafe-jafe ci wàllum ndox ak coowal suuf bi ñu ca euh, aéroport Léopold Sédar Senghor ba ab kuréel sax euh, judd si addu ci wàllu politik euh, muy élection locale yi ci janvier 2022 ku jégi nag taxawal nañ ab coalition bu mag muy Yewwi Askan Wi taka noonu sax ki fent boobi la xalaat bokk na si di xalifa Sall naka la ñuy def leneen ci wàllu ba tey li ñu war a waxtaanee mooy ci wàllu ambition bi lan moo sabab Seydina Issa Laye ni day nekk candidat à la mairie de Yoff ci yeneen ponk yooyu yëpp dinañ ko waxtaane ci biir émission bi di gox bi ki nekk ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo Seydina Issa Laye ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci rajo réew mi FM 97.5. waaw salaamaaleykum sëñ bi maa ngi leen di ziar. Mhm. di nuyu mbooleem auditeur u réew mi FM. Mhm. di nuyu kilifa diine yi. Mhm. kilifa cosaan ak yi. yi nekk ci réew mi. te di nuyu mboolem jeunesse su Sénégal. asalaamaaleykum jërëjëf Seydina Issa Laye comme niñ koy faral di defee émission bi nag comme que da nga bëgg yootu mais localité bu Yoff. est que mën nañ la bàyyi nga présenté Yoff fan la nekk ci Dakar. waaw euh, Yoff. mooy gox bi ñu njëkk samp ci ndakaaru mhm. bi lébu yi di jóge jolof mhm. dugg ci Cap Vert mhm. ñu ngi dale fu ñuy wax mbuxeex mooy tey fi stade Léopold Sédar Senghor nekk en 1432 donc yoof boobu moo jur ngor jur wakaam jur dëkkul lébu yëpp yi nekk ci département bi ak région bi sax lañ mën wax donc yoof mu ngi nekk Euh, ci façade atlantique bi mhm. maanaam ci extrême west bi mhm. euh, boo jógee tey di dugg si ndakaaru boo mhm. weesoo Padois daanaka moom nga ciy tek mu nekkoon nag Padois boobu sax suufi yoof comme ni ma koy waxee sànq donc muy commune bu am solo di am taxawaay bu dëgër ci ndakaaru ndax dafa am rôle sur le plan religieux ndax xam nañu ne mooy fiefu communauté laayeen di aussi euh, un fief coutumier et culturel. Mhm. bu lébuy Ndakaaru. Mhm. donc muy fi nga xamante ne fa la aéroport Léopold Sédar Senghor nekkoon. Mhm. ba tey sax muy aéroport militaire. donc ñu jël ko toxal ko. jas mais terewul ba tey ñu ngi conserver statut aéroport am. donc daal di commune bu am solo. di commune bi gën a yaatu aussi ci Ndakaaru. ci wàllu superficie boo koy xayma Yoff moo ci gën a rëy. ndax euh, bawoon diggante cité jàmmalaay ba virage mhm. donc yàlla a les sept quartiers traditionnels yu dëkk bi mhm. am na it extension bi lu ci mel ni Nord Foire Ouest Foire mhm. te Ouest Foire dem na ba cimetière Saint-Lazare donc ak façade bi nga xamante ne VDN bi mu ngi ko traversé donc daanaka jëli ko cité jàmmalaay ci géej bi fi ñu defee ñaari rakk yi ba cimetière Saint-Lazare. Mhm. voilà donc daal commune bu rëy la. Mhm. waaw comme nga junj nga ko say kàddu nga ni commune bu rëy la d'abord askan ba yeewoo ca Yoff yan jafe-jafe la ñuy gën di jànkonteel. xam nga ci biir quartier traditionnel yi. Mhm. maanaam dëkk bi dem na ba xat. xateel googu moo taxoon année yu ñu weesu. APEXI. taxawoon xeex ba jot lu toll ci ñeent fukki hectares ak juróom. ñu créer extension Yoff muy APEXI 1 2 ak 3. Mhm. ñu demit bay jamono waa Yoff yi moomoon seen alal muy suufu Yoff yi nekkoon Nord Foire ak Ouest mhm. waa Yoff toll ci diggante ci jamono ñu ci bëri jaay seen bos. Mhm. ay nit ñëw dëkk fa. vraiment ñu doon tey nag extension yoof muy quartier yoo xam ne muy extension yi di village bi dañoom ay jafe-jafe. bu duggee ci village bi ni ma ko bamtoo problème mu xat maanaam kër yi dem na ba xat ndax population baa ngi màgg. Mhm. géej gi la ñu jàkkaar lool mhm. la ne woon suñu ginnaaw jaay nañ ko. Mhm. joxe nañu ko maye nañ ci. donc tey dem nañu ba ndaw ñi. pour am ay dëkk dëkkuwaay lu jafe la ci ñoom. donc loolu li ci waraloon collectif pour la défense. et la sauvegarde des intérêts de Yoff taxaw ci la bokkoon. pour extension bi ñu mën ci jël ci aéroport bi. Mhm. loolee sax moo tax kuréel googu juddu ndax seetlu nañ ni dafa mel ni yéen boobu ba léegi yéen a ngi xeex pour euh, aéroport Léopold Sédar Senghor ñu jox leen ka ndax da ngeen mel ni ku nemmeeku dañuy mel ni daal bradage foncier lañ nemmeeku ci boobu le aéroport international euh, Léopold Sédar Senghor waaw loolu ci li sooxe collectif bi juddu ci la bokk ndax toll nañ ci jamono yoo xam ne gis nañu ne état bi mu ngi morcelé mhm. di lotir di jox ay nit ñuy dëkk mhm. ñu jóge fi yeneen ñu ne nag gën a jege gën a yay. ba mhm. ginnaaw ñu ne am nañ ay jafe-jafe dëkkuwaay. Mhm. bu ñu laajee état war nañu man may. Mhm. mais war waruñu man bàyyi di ñu yóbbu dagg xol ba. di ñu fa daggal ay suuf. fuy dagg xol ba. si weeru jas la nekk. waaw ah, jas waaw donc xam nga tey bu ñu geestoo gis ay suuf ñu ne ñun bëgg nañu fi ñu fi ñu cosaanoo fi ñu màggee juddu fi yaroo fa war nañu fa mën am extension. donc ce n'est pas ça n'a pas été responsable de la part de l'État. vraiment dañu génne yoof beneen wàllu bi. Yoff dëkku dëkku napp la. Mhm. ay moo la fa dëkk. Mhm. maanaam pêche bi dafa am taxawaay bu am solo. Mhm. mais pêcheurs yooyu tey seen kattan ci wàllu koom wàññeeku na. lan moo sabab lool. Euh, parce que gis nañu ne yaayu a une surexploitation. maanaam ni ñuy doxalee ci géej gi. jéggi na dayo équilibre amatu ci ba tey ñu yor gaal yu ndaw yi duñ mën a dem ci waax yu mag yi pour gétti te loolu dafa am njëkk te carburant bi dafa cher lool ñoom it loolu joytu nañu ko chômage bi it maanaam ndaw ñu judd màgg am xam-xam wala seen njàng yeggul. Mhm. ñu am jafe-jafe pour am liggéey. Mhm. loolu ay problème yu yu yu. mais euh, mais yooyu jafe-jafe yi nga junj say kàddu lan mooy responsabilité par exemple bu mairie bi est-ce que moom moo ngi si teg euh, ay jéego en tant que yow ki faree ci kujje gi. xam nga mairie bi boo leen waxee ñu ne jël nañu ay nit yuy liggéey ci mairie bi benn. Mhm. jël nañu it ay nit yuy bale mbedd yi. di mhm. def entretien. Mhm. de la voirie. te entretien voirie boobu fonds autonome. Euh, fonds d' entretien routier autonome. FERA moo ci ëpp taxawaay. jàppale ci commune bi. mais commune bi gisuñu benn jéego bu dëgër bu mu teg ci lu mën a suuxat ndawi Yoff ñu jëm kanam. loolu moom gisuñ si benn jéego bu wér un programme spécial pour jeunes gisuñ ko ci. Mhm. ñoom daanaka ba ñu faloo sax dénk ñu ndaw ñu benn cër. Mhm. dem nañ doxal ba toll ci ñeenti at ñuy soog a gestu sax di nome un chef de cabinet jeune. Mhm. donc bureau municipal bi ndaw amu fa. équipe municipale bi amul benn ndaw buñ ci responsabiliser. jox la cër ngay doxal yoofu lu mën a jariñ ndaw ñi loolu gisuñ ko ci. problème politique politicienne la ëpp ci lu ñuy régler. waaw mais yi war a jariñ doomu Yoff ñun gisuñ ci benn jéego bu maire Yoff teg. est-ce que par exemple ndaw yu wane nañ seen bopp am yenn compétence yi ngir ñu mën leen jël ci yooyu poste yi nga lim. bu baax mais xam nga euh, générosité dafa war a am ci géewu politique. Mhm. saa saa nag nga daje ceeg ñoo xam ne amuñu générosité ci ndaw ñi. Mhm. te ndaw ñi ci dëkku Lebu dañ daan baaxoo di wax rakk topp mag doom topp baay donc doomi Yoof lu ci bëri dañ daan topp mag ñi rek mhm. lu ñu jox ñu jël mais doon bi dafa commencé mhm. parce que ko gis ñun suñu taxawaay bi ñu am 2017 si élection législative yi ak gis li ñu dëgmal muy élection locale yi xam ne jeunes yu bëri tey samp seen dënd Yoof pour nekk maire mhm. te loolu c'est vitalité démocratique ñun suñu jëmm ak parti bi ñu bokk. Mhm. dañ ci am jéego yu rëy yu ñu ci doxoon. Mhm. ba tey ba ndaw yu bari am fitu taxaw di laaj maire bi mais nag mbégte lañ ciy am. Mhm. parce que day war ne combat politique ak démocratique bi ñuy mën a biir Yoff. mu ngi ci am solo mais da nga doon wax lu am solo. mu yan jafe-jafe la waa di jànkonteel boo demee tey ci extension yi. am nañu problème mu assainissement. problème éclairage public. am problème ndox. boo demee quartier yu mel ni Nord Foire mhm. dañuy toog ay fan mhm. ah, ñu def gis am ndox étape par étape mhm. laata ñoo dem si ndox bi tout d'abord ci wàllu assainissement bi ak euh, Yoff nu mu nekkee fi nekk ville boo xamante ne ci xolu capital bi la nekk lu tax euh, Yoff par exemple di jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu assainissement xam nga tey dëkkuwaay bu ñu ko moderniser. Mhm. faaw am lu ci topp maanaam boo indee éclairage mhm. indi ndox mhm. faaw nga indi assainissement te loolu état bi la rôle état bi la futu état bi la état bi da ci lajj mais tey li ñu doon xaar ci ministre bi mooy bés bu faloo yëg toog jafe-jafe yoo fi ñu war ko mën a porte devant le conseil des ministres war ko porter devant l'ONAS nekk avocat wu yoof mais gis nañ ne loolu yëpp tey sooxe na boo demee quartier yu mel ni tóngoor bu tawee jàkka ji sax day inondé kër yi waxatuñu ko. Mhm. donc aujourd'hui li nga xamante ne tey mooy suñu mébét mooy nekk porte voix wu yoof mhm. ci fànn yëpp moo tax mhm. bu ñu ñëwee ci émission yi mel nii li jafe-jafe yu yoof di jànkonteel dañ koy wax parce que nguur gi am na ay nopp du ma sori ci explication yi mais ay noppam tey képp ku wax ci rajo bokk ci gujjëg politique bi nguur gi dina la déglu donc ñun li ñu man di suñu wareef mooy artuwaat état du Sénégal xamal leen ne yoof ginnaaw euh, droit yu mu am ci réew mi mais dafa nekk une cité religieuse mhm. buy dalal ay événements religieux yu bari donc appelu Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam chaque année mhm. ak gàmmu ak ay jàng mhm. donc Yoff chaque fois day nekk ci xumbelu jotaayu diine donc loolu li ci war état du Sénégal tey mooy ci programme bi mu lancé woon pour yeesal dëkku diine yi moo doon ñu jëlal ñu en charge le volet assainissement def ko une super priorité tey sept cent et quelques milliards pour régler problème mu assainissement ban cër la ci Yoff am. ñu mhm. gisuñ ko ci mhm. dégguñ ko ci. Mhm. donc lii day nag tribune boo xam ne. dañ ciy profiter. wax dëgg yàlla kaasal waa Yoff pour wàll boobu ñu man ko saafara. ñu bonne fois pour toutes. parce que appelu Seydina Limaamu day dox. te bu doxee ba dajak nawet. mais naka la waa tongoor di dunde appel bi mhm. naka la waa ndenaat di dunde appel bi ba mhm. ginnaaw nag tollaguñ ci parce que day dox ci weer wolof te mhm. dina dem ba jànkonteeg nawet faaw nag ñu teel a artu fekk at yi di ñëw état bi mën si ay saafara ci wàllu assainissement bi sama xalaat jàppoon naa ne waruloo doon ay jafe-jafe d'autant plus que Abdoulaye Diouf saar mi jiite Yoff moom ministre la en même temps ba pare bokk ci guvernement bi alors fan la jafe-jafe bi nekk ba Yoff di jàngonteel wàllu assainissement dafa matalul taxawaayam buñ la falee nga ne da nga a defar dëkk bi am na neneen noo war a taxawee lu dul taxawee mais xam nga li jafe ci jamono ji léegi ak li ñu saytu mooy woy politique yu ci bari mm-hmm. dañuy ut commune pour mën a am nomination ministérielle mm-hmm. dañuy ut commune pour mën a bokk ci échiquier politique bu mag bi mm-hmm. donc maanaam dañuy mubawoo commune yi rek mais li leen yitteel dëgg dëgg dëgg du fexe ba commune bu suqaliku jëm kanam donc loolu lu ñuy ñaawlu la di a mais jiitewul les sessions ordinaires du conseil municipal. Mhm. toog na ay weer tegul tànkam ci commune bi. Mhm. noo mën a yore une commune à statut religieux ndax loolu lañ bëgg ñu jëm ci. Mhm. am un statut particulier parce que état du Sénégal tey ak lu mu mën a demee wekk na yoof dina bàyyi xel yoof loolu mooy waree fam mënoo ko yor nag te doo dund ak nit ñi seen i jafe-jafe balaa ñu koy gis moom. day fekk ne élection yi jot na. te loolu ngeen jéggal ma. ci kàddu gi mais yëpp la. waa yoof la. yëpp ñi nga xamante ne dénk nañ la sa kàddu. maanaam wegu leen. ci mhm. ñu ko mën a tënkee daal ci mhm. kàddu. est que pare nekkul lu mu doon double fonction jiite ministre ba pare nekk maire ak jamono ji ñu toll euh, pandémie bi di Covid 19 est-ce que dina mën tal localité boobu di Yoff. bu ñu mënee pandémie bi service technique yu ministère de la santé ñoo ciy saytu ñoo ciy dox. Mhm. bu ñu mënee pandémie bi y a une une un comité national de gestion des épidémies mhm. donc du liggéey bu muy jël moom di ci dox moom mhm. day coordonné mhm. ñun Yoff la ñu dëkk balaa nga koy gis mu génn sax dix heures jot kon gisuñu lu ko war a mën a tënk ba mu war a mën a bàyyi xel Yoff beneen bi waxtu yi nit ñi di wàcc lay wàcc dix donc loolu luñ ci am preuve yu ndax mhm. ñu ngi dëkk ci dëkk bi ràññee nañu ko buy dugg ak buy génn. Mhm. beneen bi Aly Ngouille Ndiaye nekk na le ministre de l'intérieur. Mhm. nekk le premier homme de tenue du Sénégal. di gérer la sécurité publique. ak fi réew mi toll ci sécurité. mais Aly Ngouille Ndiaye terewul il n'a jamais été aussi proche des populations que bi mu nekkee ministre de l'intérieur. je ne le pas mais lu ñu gis la. bokkuñu ak moom camp mais dañu gis ndax am nañu ay wëlëre ay xarit yu nekk ci moom mais gis nañu ni mu doon rey rayante. pour sécurité am ci réew mi. ak ni mu doon reyante pour waa Linguère yëg ne moom mooy seen maire. Mhm. donc tey euh, maire Yoff mënul prévaloir u ministre pour wax ne aw ma jot. Mhm. te bu amul jot it na bàyyi commune bi ak ñi am jot. Mhm. ñu mën ko liggéey. yéen ndaw yi nekk ca Yoff yéen yan jéego ngeen si def d'autant plus que commune bi yéen ñëpp yéen ko bokk pour ci wàllu assainissement bi. waa xam nga assainissement dafa cher. mais ñun tey ñu ngi ci ay bànqaas yoo xam ne. ba ñu doon jàppale gox-goxaani ci wàllu ay moto pompe mm-hmm. kaasan la ñu yoof mm-hmm. ba jox leen stock bu am solo ci moto pompe lu ville de Dakar def mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla taxawu na yoof te ñu nit liñ ci mënoon ci taxaw ci jëf ak kàddu defoon nañu ko te it wax dëgg yàlla bu euh, jafe-jafe amee ci wàllu inondation yi lañ ci man ci jàppale askan wi ci taxaw leen it ñu ngi koy def. Mhm. mais assainissement cher na cher boo xam ne mhm. maanaam. maanaam du seen compétence. du suñu compétence mais lañ ca manoon. Mhm. ci taxaw leen pour ñu am ay moto pompe def nañ ko. lañ ca man si fi ñu doole poos toll. bu ñu gisee ne ñu ngi si ay jafe-jafe ci sutura ñu jàppale leen te yàlla tax. ci wàllu plan ORSEC bu état bu Sénégal lancé woon. gis nañ ko pour jéem a xool naka lay def ba indi solution ci wàllu inondation bi. Uh-huh. koppar yu bëri nag ci banlieue bi lañ ko lañ ko yóbbu ndax foofu la mbënn mi gën a métte mhm. euh, d'abord Yoff ban jeexintal la am plan ORSEC bi bañ ko lancé ba léegi waaw ñun moom gisuñu ci yi amuñ ci yëg-yëg mhm. ci plan ORSEC bi parce que comme ni nga ko waxee rek am na ñu ñu gën a métti le fopp mhm. waaw Yoff moom daanaka tane na bu doon dañuy jël euh, si par catégorie. Mhm. priorité ñu def ko ñetti pàcc ñun mën naa wax ne ñu ngi si ñetteelu pàcc bi. Mhm. bien que nag am nañ ay jafe-jafe. Mhm. mais warul tey nag état du Sénégal fàtte ñu mais day day day day gën a fësal rek. ne ñi ñu dénk. parce que wax naa ko sànq programme d' urgence assainissement bi état bi defoon toll ci juróom-ñaar téeméeri milliards. loolu gisuñ ci benn jéego buñ jaf yoof mhm. waaw donc loolu aussi tribune la tey ñu mën ko fàttaliwaat état bi mhm. fàttali ko maire ba fa nekk wane ne waree fam digganteem ak waa yoof moom taxawu ci defu ko mhm. ci wàllu assainissement bi dem ci mhm. wàllu ndox seetlu nañu askan ba yeewoo ca yoof Nord mhm. Foire Ouest Foire foofee yëpp dañuy jafe-jafe dañuy jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu ndox mhm. daanaka guddi gi rek la am ndox semaine passée rek génn nañ manifester ci kanamu euh, Sen'Eau ndax jafe ñi wàllum ndox loolu ban gis-gis nga si am ci taxawaayu seen o ginnaaw ba mu yoree ba boobi sax kuréel xam nga ndox moom waratul nekk luxe ci vingt et siècle li wër euh, ndakaaru yëpp tey géej la mhm. donc je pense que nguuru président Macky Sall waroon nañu mën a góor góorlu mhm. wax dëgg yàlla ànd kook SONES parce que SONES mooy réaliser ouvrage yi mhm. mettre à disposition de Sen'Eau li nga xamante ne mooy ndox mi mais nag liñ ciy ñaawlu saa su nekk rek mooy ñàkk worma bi ñu wormaal yoof ñaareel bi mooy nit ñi dañuy toog ay fan waxuma la sax des fois dutti sax tijj duñu am ndox mais terewul bu facture yi ñëwee day gën a cher day gën a metti mhm. mais nag loolu faw nag wax dëgg yàlla euh, Sen'Eau xoolaat doxalinam xoolaat boppam xoolaat nu muy facturer parce que ñoo ñu amul ndox mhm. daanaka as tuut la ñuy am ci ndox te buñ ñëwee facture yi euh, juróom benn junni juróom ñetti junni fukki junni bu jëm ko nga mhm. xam ne loolu kon facturé ñu nit ñi dañ leen di facturé ne ñoom am nañu ay compteur rek donc dañ war a fay donc loolu it ak njubadi la gu leer équilibré dëkk bi war na ci indi ay saafara. Mhm. par exemple waa seen oo yan explication lañ teg seen loxo ni lii moo waral par exemple jafe-jafe ci wàllu ndox. waaw ñoom dañ ne woon ay jamono parce que jotoon nañ ci gëstu. Mhm. ne débit bi Ndakaaru di consommer moo bari. Mhm. defoon nañ beneen ouvrage bu bees muy Kër Momar Sarr 3. je pense doon leen gis weer ñu weesu. ñu doon def tuyauterie bi biir Yoff mais ba tey suñu problème mooy amuñu solution. mais daañu suñu dàll. demaat fekk jiwaat leen laaj leen. Mhm. parce que bi ñu newee KMS 3 bu paree. Mhm. dinañ am solution ah, bu léegi nag gis nañ ne dara doxu ci. Mhm. waaw ne woon nañ dinañu def usine de dessalement de bu ndoxu géej fële ca booru Mamel ñu ngi koy xaar. ba xam ndax bu yegg see it ndax jafe-jafe yi dina dina dina saafara euh, wala déet. Euh, ci wàllu infrastructure ca Yoff. est-ce que Yoff par exemple am na ay jumtukaay ci wàllu dem beeg euh, dikk bi. waaw Yoff moom daanaka. Euh, ci wàllu dem beeg dikk bi Dakar dem dikk mu ngi fay dugg. Mm-hmm. donc boo xoolee it am na ay bis yu fay jaar. Mm-hmm. lu mel ni 36 bi lu mel ni 4 bi lu di jokkalante Yoff ak banlieue bi ak Yoff ak centre ville. Mhm. donc loolu moom wax dëgg yàlla mu ngi mu ngi am. Mhm. Euh, wante góorgóorlu it doon baax. Mhm. ci ponctualité bus yu Dakar dem dikk yi. pour ñu gën a bari ndax temps d'attente bi surtout si heure de pointe yi. lu ci mel ni suba gi. ñu war a gën a mën a wàññeeku pour yombal nit ñi dem beeg dikk bi. ci wàllu seetlu nañ par exemple gox yi fare fasanti ko fii ci Dakar jafe-jafe ci wàllu espace vert mhm. maanaam ci ndaw ñi fi ñuy tàggatoo wala sax def lii di loisir par exemple Yoff est-ce que am na bërëb yi nga xam ni ndaw ñi dinañ ci gis seen bopp waaw mairie bu Yoff ak état du Sénégal at yi ñu weesu mhm. def nañ ci ay jéego mhm. defal nañ ay place publique Ageroute aussi bu muy yeesal euh, banqaas yi nga xamante ne mooy autopont yi di samp yu bees ci Ndakaaru ci seen ouvrage yi def nañ ci ay espace de détente mhm. donc loolu aussi dañuy euh, ko gis nañ ko lu nit mën a teg bët la mhm. di ko seede ne am na yoof mhm. addu par exemple ci wàllu politique élection mhm. locale yi ci atum 2022 mhm. lañ koy jàpp gis nañ ni bañ ko taxawalee ba léegi ak ba ñu ubbee révision exceptionnelle yi ab coow moo am ci wàllu certificat de résidence yi gis nañ ñu faree ci seen coalition mhm. bëri na mi Dias li mu ko décrier par exemple Yoff naka la fa tëddee ci wàllu coow certificat de résidence waaw certificat de résidence bi moom ñun jafe-jafe biñ ci am dañ ko régleel suñu bopp mhm. parce que xam nga loo mën a régleel sa bopp moom doo woote wàllu mhm. ndax am na ñu ndaw bu ñu toggaloon ci commission bi mhm. di ko nuyu au passage Meng Adama euh, di firnde ne gisoon nañ ay lënc-lënc mais seen fulla ak fayda ndaw opposition bi toogee ci commission bi mhm. vraiment ànd ak responsabilité bu autorité administration territoriale bi tax na ba jafe-jafe yooyu dañ mhm. parce que liñ ci remarqué woon mooy dañ set saytu woon ne directeur de cabinet bu ministre maire bi mhm. dafa doon signer ay certificat de résidence alors que il n'a pas compétence maanaam cëram may ko mu def loolu donc nag si lañ rejeté bépp bataaxal bu tudd certificat de résidence bu mu vraiment mhm. ñi jiite commission bi ah euh, sous préfet bi ànd ci mhm. muy nag lu ñuy rafetlu mhm. laata ñoo xuusax ci élection locale yi muy ponk ca Yoff euh, par exemple Abdoulaye Diouf saar ba mu toogee ci boppu localité bi ba léegi yow ban euh, gestion bi maanaam yorin ngi yow naka nga ko gisee waaw yorin bi gisuñ ci benn innovation majeure parce que mm-hmm. tey boo jëlee wàllu fi àdduna bi doxe mm-hmm. jàpp nañu ne moom dafa fayir mm-hmm. daanaka ci programme am tey lu mu ci mën a wax ñu teg ci baaraamu baaraam mooy jardin ak espace public yu mu def en partenariat avec l'État du Sénégal maanaam à l'époque mooy ministère bi Diène Farba Sarr yoroon ministère du cadre de vie boo weesoo loolu euh, gisuñu benn jéego bu rëy bu mu teg ci wàllu éducation maanaam ci nu ñuy yéegale Euh, qualité éducation ci Yoff gisuñ ko ci. Mhm. boo jëlee it wàllu euh, jàppale jigéen ñu ñu mënal seen bopp. Mhm. ci économie sociale et solidaire gisuñ si benn jéego bu ci maire Yoff teg. Mhm, boo xoolee it wàllu ndaw ñi. toujours ci njàngale mi ak wàllu ndaw ñi mënal seen bopp. gisuñ it benn jéego. bu rëy bu ñu teg am na bànqaas bu ñu ubbi woon muy centre incubateur Jaraaf Issa Mbengue nga waroon former ndaw ñi suñu mënal seen bopp mais bañ ko inauguré ba tey gisuñu benn promotion bu génn ñu ne ñii kat maire moo leen jàppale ba ñu mën mënal seen bopp donc loolu aussi lu ci am solo la ci maire yi ni ñu war a jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi ñu al seen bopp. donc tey bërëb yooyu moom moo ko ubbi woon. moo ubbi woon la centre incubateur Jaraaf Issa Meng mais vraiment gisuñu ba tey war na mat ñaar wala ñetti at benn nit bu fa génn. Mhm. ñu ne di incubateur bi mhm. moo ko moo ko moo ko produire. boo demee aussi ci wàllu pêche. par exemple alerté woon ngeen ko. waa xam nga euh, saa su nekk bu ñu amee émission. Mhm. ci télévision communautaire yi. Mhm. dinañu artu. Mhm. dinañu aussi joxoñ baaraamu tuuma mais ñoom bëgguñu gis. seen taar maanaam li nga xamante ne tey mooy seen euh, fi ñu lajje ñoom nanguñu ko xool pour ñoom la bilan du maire est totalement positif. alors que loolu du lu am. xam nga commune bi. li may wax nit ñi rek la ñu ëpp la ñuy def ñoom mooy de l' assistance mhm. maanaam di di assister nit ñi mhm. te fi jamono toll mhm. ak fii jéegooy àdduna bi toll boo ko jëlee ci wàllu développement durable jël ko ci wàllu économie sociale et solidaire gisuñu benn jéego bu maire bi teg pour xuus ci ñaari fànn yooyu te fànn la yu am solo yu maire bi waroon dësandiku pour mën a génn ay programme yu bees yu méngoo ak jamono parce que tey Yoff est une ville côtière tey waroon nañ man ci wàllu développement durable xool nu ñuy sayto littoral bi ba mu mën a jur koom. Mhm. nu ñuy doxe ci ay jéego ba mën di recycler sax une partie des ordures yi commune bi di produire. Mhm. mais tey nee naa la nañ daan gérer commune. Mhm. ca année yu njëkk ya moom la fi Abdoulaye Diouf Sarr def. kon mook équipe suñu benn innovation benn jéego bu rëy boo xamante ne tey def nañ ko. ci wàllu sport boo demee ci sport bi tey dañu intégrer ñoom les instances sportives de la commune te loolu du seen rôle mhm. seen rôle mooy bàyyi le monde sportif gérer seen bopp sport bi mhm. ñoom nag ñu ñëw en appoint bu difficulté amee mhm. mais mënoo nekk maître d'œuvre nekk maçon nekk peintre nekk lépp non non il faudrait qu'il y ait une répartition des tâches dans l'exercice de la gestion de la commune mhm. mais malheureusement ñoom ils ne pas compris mhm. te loolu nag ci li yokk jafe-jafe dëkk bi ci la bokk kon bu ma comprendre say kàddu maanaam Abdoulaye Diouf Sarr yorin bi des na loolu lu bëri des na am nañ ci nag regret ak mbetteel gu rëy parce que mhm. ni mu doon fëggee dënnam ne maa mën maa ko sañ wax dëgg yàlla ak li ñu am à lu wuute la nous sommes avec un maire qui se cherche dans son bilan c'est ça la vérité mhm. maanaam mu ngi wër boppam ci ay réalisation parce que yu ci bëri nag du jëfam mais jëfu état du Sénégal la mhm. donc day laaj tey kon budget maire yoo fan la jaar bu ñu ba maire bi li ci ëpp ci budget bi boo jëlee téeméer yu nekk mhm. juróom ñetti fukk yi sax wala juróom ñaar fukki ak juróom yi ci fonctionnement la jëm mais tey yan perspective la mairie bi mën a ubbil Yoff gisatuñu ko donc il faut un rajeunissement yemale suñu bopp fi àddina di yam mhm. waaw maanaam ñu bañ a xeeb suñu taxawaay ñun yoof mhm. mais fi àddina toll ñu fexe ba yëgal fa turu yoof ak mhm. taxawaayu yoof par exemple fan la euh, inde bi di folote maanaam fan la affaire yi di sooxe d'autant plus que mairie buy yoof ci ndakaaru la nekk te seetlu nañ ni par exemple mairie yi fare ci ndakaaru yëpp ñoom du ñu am jafe-jafe ci wàllu koppar par buñ ko ko gam-gamle ak mairie yi nekk à l'intérieur du pays mhm. ndax yooyu la localité doo am benn entreprise yi nga xam ne daal dina mën a génne ay koppar yuy dem mhm. ci yooyu la maire fii ci Dakar gis nañ ñoom dañuy am ay recette ci wàllu koppar naka noonu mhm. sax ci wàllu budget bi loolu yëpp buñ ko boolee fan la inde bi flotté ba Abdoulaye Diouf Sarr teg ay ay jéego ci wàllu programme yi nga xam ne ni tegoon na ko ba pare mu mën a jëmmal li ni mel ba population ba yeewoote yoof ñu gis seen bopp. xam nga moom ministère am la gën a tal. Mhm. pour pour prestige boppam. mais mhm. équipe ba mu fa bàyyi dañu tële. Mhm. maanaam kumba am ndey kumba amul ndey la ñuy doxee. ak parparloo. te loolu it gouvernance bi ñu soxla mooy une gouvernance juste équitable. mais malheureusement ñam fa bàyyi. bëgg nañu def mais ci dox ci politique moo leen ëppal yitte mhm. que régler problème bu askan wi yoof ñàkkul alal mhm. am na alal ju bare bari bari ndax budget bi dem na ba yegg près de deux milliards mhm. ñaari milliards ci suñu wàllu xaalis donc tey euh, amuñu compétence pour xëcc yoof mu jëm kanam te ñoom li ñuy gëmloo nit ñi mooy faaw nga am ministre bu nekk ci gouvernement bi pour xëcc dëkk bi mu jëm kanam déedéet xam nga développement lu ay nit di ànd la décidé na ñun ñi askanu yoof dañu bëgg a tegu ci yoonu suqaliku mhm. mais du benn nit mooy taxaw ne dinaa suqali yoof mhm. malheureusement nag moom ci taxawaay boobu la taxawee les forces vives de la commune ñu seen bopp mhm. ci doxalinu commune bi maanaam boole boolewu leen si yéen pour ngeen mën a ànd liggéey déedéet amul moom li mu gën a gis rek mooy ku àndul ak man dama lay xeex maanaam par parloo la ñu doxale ak it maanaam jël Euh, li tubaab di wax guerre euh, corruption. Mhm. guerre maanaam ku ànd ak ñoom ñooy mën a am njëriñ ci commune bi ku àndul ak ñoom mënoo am njëriñ ci mhm. euh, baax baaxu commune bi. Mhm. te li koy firndeel mooy ci Covid bi. suñuy nit yu bëri yu fare ak ñun nit ñi xam leen. ci gox goxaanu Yoff. ñëw nañu. ah ñun kat waa mairie bi nee neen du ñu jox ci ceeb bi. ak dund gi état bi joxe. parce que farew ñu ak ñoom. xam nga loolu buñ koy doxali ci commune rek. day indi par par loo day indi kumba am day kumba amul day mhm. maanaam ñi fare ci nguur gi ñooy mhm. mën a séddu ñi farul ci nguur gi te ñooy ëpp nag du ñu séddu mhm. parce que dañuy fàttali ne benn Bokk Yaakaar mosul am la majorité absolue à Yoff donc ñi àndul ak ñoom ñoo ëpp ñi ànd ak ñoom ah, ah, alors kon lan mooy expliquer lu tax Abdoulaye Diouf Sarr yër mairie bi non xam nga euh, si mode de scrutin bi la tey bu muy gagné Yoff amul cinquante pour cent des voix quarante et pour cent des voix la am mais xam nga scrutin majoritaire à un seul la maanaam ki jiitu rek yaay gagné. Mhm. waaw donc loolu moo waral ne. tey moo jàll. Mhm. mais boo boolee ku jëkk politique ak ñëpp ñu nekkoon candidat boo ko boolee daanaka yegg na presque 60 pour cent. Mhm. donc jàppal ne kon ne 60 pour cent ñi voté ànduñu woon ak ñoom. Mhm. mais suñu type de scrutin nag bu doon deuxième tour day am. amaana bu du jàll. Ah, li si kanam rawu li gën. incha allah élection locale yi 2022 yi bu laajee ba xam dinañ ko delloowaat. waaw wala déet si je comprends bien ci say kaddu maanaam bilan Abdoulaye Diouf Sarr ba léegi daal dafa négatif. dafa negatif parce que li mu diggoon waayof ak li ñu xaarante woon ci moom. jàppale ndaw ñi ñu mm-hmm. mënal seen bopp parce que askanu wi boo ko jëlee ndaw ñi ñoo ci ëpp mm-hmm. mais ndaw yi yoof gisuñ seen bopp ci gestion Abdoulaye Diouf mm-hmm. loolu mooy dëgg bi bu loolu amul woon tey doo gis une multitude de candidatures de jeunes yu taxaw pour mën nangu nguur gi ci moom te insha allahu rabbi ndaw yooyu dina dinañu am ndam ci kawam parce que dëgg rek mooy mujj est que ndaw yi nga junj sànq par exemple ñe yeewoo ca yoof ñu est-ce que am nañ ci luñ ci lu dëgër waaw ndaw yi nga xamante ne ñu ngi politique yoof yàlla suturaal leen ñoom ñëpp mhm. ñu ngi demal seen bopp mhm. ñu ngi góorgóorlu seen bopp te alal ji leen yàlla jox axas néew ñu ngi koy bokk ak waa yoof mhm. tey damay wax nit ñi ne leen saytu leen ñii yootu mairie bi yëpp alaa rawate ñun ñu fare taxawu Sénégal liñ fi jëf ci politique ci bokk ci ñiy jëmale yof kanam ci jàppale doomi yoof ñi yor jamono jiñ toll. Mhm. bañ ca tolloo defuñu ko. Mhm. ñoom dañ doon raser même les murs maanaam amuñoon fitu sax taxaw génn def li ñuy def. Mhm. waaw donc tey dañuy encourager bépp ndaw bu nekk yoof vraiment di politique que ça soit du côté du pouvoir. que de l'opposition xam ne ëllëgu yoof si suñuy loxo la reposé te nous avons un devoir maanaam wareef la ci ñun tey ñu taxaw tegu ci ak njub tegu ci ak dëgg la yoof am ci alal ñu tekk ci yoon ñëpp man si mën si gis seen bopp ñun uti diw ñu nguur pour boot di compter kenn mm-hmm. tey bu ñu yàlla defaloon ndam ci li ñu dëgmal ñi nga xamante ne dañuy am ndam seen kaw mm-hmm. dañ leen bëgg jëlaat mm-hmm. boolewaat leen si ñuy doxale loolu mooy jëmale réew kanam gis nga réew ak dëkk faaw ñu am ay consensus fort yu ñu teg pour mën a utili développement. mais ci wàllu politique moom day jafe lool lii di consensus sa am seen biir ndax xalaat yi ak ambition yi dafay wuute lu bëri ndaw yooyu nga junj sànq ci say kàddu ñoom par exemple ci wàllu politique lan moo leen tax a jóg euh, falu ci boppu mairie bi. Uh-huh. saafara jafe-jafe askan yi wala wala wut ndomba tànk képp moo leen tax a jóg ndax seetlu nañ ñu bëri ci wàllu uh-huh. politiciens yi euh, junj nga ko say kàddu ni Abdoulaye Diouf Sarr moom ci wàllu mairie bi politique képp moo taxoon mu jël ko. waaw man de ndaw yi ma gis yoof te xam leen. Mhm. ah njort naa njort. Mhm. bu rafet ne defar yoof moo leen tax a jóg ñun moom waxuñu suñu bopp ñun ndax boo leen bëggee xam sax dugg leen biir yoof mhm. laaj Seydina Issa Lay Samb ak ñi fare ak moom mhm. lu ñu def ci wàllu éducation mhm. joxe nañ fa lu ëpp ñetti junniy bourse mhm. lu ñu def ci wàllu jàppale jeunes yi ñu mënal seen bopp permis de conduire joxe nañ ci plus de juróomi téeméer femmes yi lañ fa dugal ci financement pour war a mën a jàppale femmes yi boo ko cumulé tey yegg na près de trente millions si jàppale jigéen yi ñu demal seen bopp mënal seen bopp te bourse yi ñu joxe sax xooluñu si ñi ànd ak ñun ak ñi àndul ak ñu ci bu baax a baax a baax a baax a baax pour ñu du palak suñu bopp. Mhm. du daraja du alal mais fexe ba teg ay jéego yu wóor. pour yoof mën a jëm kanam moo tax élection yi ñu yëkkati ki suñu loxo. Mhm. parce que jàpp nañu ne suñu doxalin méngoo na ak li yoof di xaar. Mhm. te it ñu ànd vers des consensus forts bu ñu faloo lu mën nekk la. parce que boo saytoo suñu maître ci politique di xalifa Ababacar Sall. yor na conseil municipal bu ville de Dakar te boot di kontew ñu kenn mhm. maanaam boole na ñu ñëpp muy pouvoir di opposition mhm. ñu servir Dakar mhm. dama koy firnde rek Ablaye Matar Diop en 2009 ànduloon ak ñun mais bi ñu faloo dañ ko dénk commission des finances bu ville de Dakar muy saytu comme comme mu Ndakaaru te ànduloon ak ñun boo jëlee tey Ablaye Diouf Sarr bokk ci conseil municipal bu Dakar mais moo yoroon président de la commission culturelle bu mm. ville de Dakar mm-hmm. te àndul woon ak ñun mais dañ ko cëral ñun loolu lañ xam ci politique mais li fii xew ci dëkk bi non loolu président Macky Sall ak ay ñooñam ñoo ko xam mm-hmm. maanaam gérer seul assumer seul moo tax it ci ay ñombe rek la ñuy dëkk mm-hmm. parce que pouvoir du lu ñuy concentré ci loxo ay nit kese mais da koy séddoo di ko pencoo ak ñëpp mm. pour lépp mën a leer mën a tegu si ak njub ndax dëgg ak suuxale ku mën a ñëw ci réew mi. rawatina sax ci wàllu commune yu ndaw yeeg ndawtaan ndax mhm. foofee sax politique waru ko lal. Mhm. ngeen war a doole seen. boole seen doole pour mën a indi saafara ci mhm. jafe-jafe askan wi. lool yooyu kàddu yi nga lim yëpp loolu moo par exemple loolu mooy ambition bi. pour nga bëgg a jël localité bu mairie bu Yoff. wallaay parce que li ñu yitteel ñun mooy ñun ci dëkk ba la ñu dëkk. fa la ñu juddoo suñuy maam ci ñi sos dëkk bi lañ bokk. Mhm. te dañu yàgg amee taxawaay ci dëkk bi. Mhm. mën naa la li man suñu benn maam bu tudd jaraaf Malibert Sàmb mu ngi daanu ca mbijjam. Mhm. défendre Yoff moo tax ñu faat bakkanam. moo tax mu joxe bakkanam. donc ñu nit suñu wareef. mooy suñu maam yi fi ñu tegoon suñu tànk mhm. jamono bi ñu jànkonteel ñun ñu tegaat fa ñun suñu tànk mhm. donc loolu képp ku dem Yoff laajte famille Sambène xam ne ci fami yu sos Yoff la ñu bokk te dañu yàgg tuur seen deret mhm. pour Yoff mën a jëm kanam donc ñun waruñ des ginnaaw lu ñu war mooy fexe ba jot dëkk bi ni ñu yare ak ni nga xamante ne moom lañu amee gis-gis ñu ànd ak dëkk bi yépp même waa APR ci biir bu ñu yàlla mayoon dam pour mën a teg nag Yoff ci développement weesu nañu fu ñuy utiliser yoof pour jëm kanam mhm. donc tey moo tax ñuy wax waa yoof bu ñuy tànn nañ saytuwaat bu baax mm. ñenn nañuy tànn ñun de mm. élection lañ jógee 2017 mu waroon bokk bokkoon sax ci list liste Manko Taxawu senegal jiite élection yi suñu nataal fës ci bépp euh, kuréel ak ci bépp affiche ba waa Yoff wóoluñu maanaam ñu am le tiers 33 pour cent des voix mm-hmm. pour wax leen rek ne Yoff fa lañ dëkk mais alhamdulilah defuñ fa lu ñu waa Yoff di jëppee mm-hmm. te it wax naa ko sànq la répétition est pédagogique ni ko nasaraan si di waxee jëf nañu yoof jëf yu rëy. Mhm. te yoraguñu nguur. Mhm. xam nga kiy dox di raam di la boot bés bu taxawee kenn waxatu ko te ku la dig. Mhm. Euh, ku la jox ndekki. ne bu la diggee añ. bu des na koy man xaar. te ñun yoof moom. <laughs> wax dëgg yàlla kañuñu suñu bopp. yàlla la sant. ci num ñu kàttanale. jox ñu ay pexe jox ñu mm-hmm. ay moyens yu ñu mën a dugal biir Yoff mm-hmm. te li ma la wax mm-hmm. gëstuwaat leen ko liñ fa taxawee ci politique yàlla moo ñu ko may. Mhm. nit musu ko fa taxawee bokk ci opposition. musul mhm. am déedéet maanaam lépp dina leer incha allah. ci élection locale yi deux mille vingt et un di ñaan yàlla nag may ñu ci ndam lu leer lu amul benn werante. Mhm. incha allahu rabbi ak yeewi askan wi. ba tey eh, gis na élection yooyu la locale sax da ngeen ciy dem ak eh, coalition yeewi askan wi. yow nga bokk ci coalition bi nga xam ne daal Khalifa Sall moo ko jiite muy Manko Taxawu Sénégal. ak eh, bu Dakar coow nag amoon na ci wàllu caution bi muy fukki million ak juróom juróom ak yeneen mhm. fukki million juróomi élection locale yi ak mhm. départementale est-ce que yooyu la koppar yow euh, mate nga ko pour bokk ci yooyu la élection waaw xam nga élection yooyu moom ñun amuñ ci problème mhm. pour jëm ci ci wàllu koom dañ siy dalal xelu askan wi dalal ci xelu waa Yoff ndax gis nañu ne fi mbir mi gënoon méttee 2017 campagne nañu fi mu gënoon méttee 2014 it campagne nañu mais euh, caution boobu ñuy joxe du ñun ñoo koy joxe mais coalition bi moo koy déposé pour commune yëpp mhm. donc loolu moom dañ ciy dalal seen xel ñun amuñ ci benn jafe-jafe mhm. te élection sax la may wax nit ñi rek du xaalis mhm. surtout budget campagne am na looy soxla surtout jour vote bi pour sécuriser élection yi ñay ànd ak yow ñuy nga am loo leen teg seen loxo pour ñu jàppale la ci liggéey bi mais ñun li ñu gën a gëm mooy détermination maanaam xadar ak njub ak kattan gi ñu ciy àndal loolu kenn mënu ko xayma ci kom te loolu daanaka ci ndaw ñi lay fekk baax ak moom te ñu ngi koy sant borom bi bu ñu ko joxee mhm. ba tey dañuy des ci coalition Yewwi Askan bi ku fent boobi la xalaat bokk na ci xalifa Sall mhm. ànd si ak uh, Ousmane Sonko boobi la mhm. coalition sax lan moo sabab uh, li ni mel xam nga dañu toog saytu doxalinu nguuru président Macky Sall ni jubul ñu saytu kumba am ndey kumba amul ndey bi ne ci réew mi ñu saytu ne boo bëggee am ndam ci politique ci élection yi ñu dëgmal muy législative maanaam fi ñuy tànne ndaw yi toog ci péncum ndawu askan wi di assemblée nationale mhm. ak tànn ñi war a nekk ci gox-goxaan yi mhm. ak forme scrutin bi mhm. maanaam un seul tour majoritaire maanaam raw gàddu faaw ñu boole suñuy doole doon benn loolu si lu yokk tax ñu créer yeewi askan wi ci la bokk parce que lu benn man rek ñaar wala ñett ko mën te président Ousmane Sonko ak PUR daanaka yi nga xamante ne ñooy suuxat ñooy tànk coalition bi ci politique boo xoolee soriantew ñu ay vision ak ay mooy ànd mhm. te nous sommes plus à l'ère des individualités mhm. maanaam weesu nañu jamono yi nga xamante ne mana a la mhm. mais jamono yi ñuna ñuna la ñu toll donc loolu moo sabab président Khalifa Sall compte tenu de son expérience politique soldat lam seeti président Ousmane Sonko seeti sëñ Moustapha Sy ñu ngi koy ziar seeti aussi le président Abdoulaye Wade pour taxawal kuréelu opposition boo xam ne wax dëgg yàlla dina am locomotive manaam saxaar su am doole su xëcc li nga xamante ne mooy yeneen wagon yi muy parti yu ndaw ndawaan yi ci topp mhm. parce que nag c'est la loi de la nature mhm. noonu la àdduna di doxee day am ñu am doole ñu jug xëcc mu dem te nag li ñu leen di sant. Mhm. mooy bés bu ñu faloo comme ni ko Khalifa Sall daan doxale mhm. mu ñu bañ a xool ne kii mag na kii ndaw na mais ñu booloo ñun ñëpp. liggéeyal mhm. askan wi. loolu mooy suñu wareef. te loolu si li ñu boobu par exemple gis nañu ne ténor yi dañ see bëri. Ousmane Sonko Khalifa Sall ak waa PUR est-ce ay kuy mën nañoo bokk ay mbalka. bu baax a baax a baax moo waral nag ñu def charte charte boo xam ne dañuy wax. naka lañu ñu war a mën a doxe ak naka la ñuy doxale créer it commission boo xam ne bu ñu ci investiture yi bu amee jafe-jafe commission boobu day daanaka rapproché position yi maanaam mm-hmm. dajalewaat nit ñi mm-hmm. parce que wax dëgg yàlla euh, adduna bi moom fa la toll mm-hmm. waaw ay kuy yu war a ànd mën a nag affronter kuy mu mag mi nekk ci réew mi tey ruubee toolu réew mi tey ruur toolu réew mi waaw muy ki jiite benn bokk yaakaar est-ce que charte yooyu par exemple def na effet ndax ba ngeen ko taxawalee yàggul ñaari fan ñetti fan gis Bougane Gueye Dany mu génn ci boobu la coalition ndax dafa mel ni consensus amul ci wàllu par exemple ni ngeen doxalee boobile coalition. ak uh-huh. couleur uh, coalition bi est-ce que par exemple Ousmane Sonko wala Khalifa Sall. ñëw uh-huh. njëkk a li ni mel. loolee tax Bougane Gueye Dany gaa di génn PDS mi ngi ci junj sànq say kàddu ni dafa uh-huh. bokkoon moom tamit génn nañ. ba taxawal ab coalition. xam nga Bougane Gueye Dany bu toogee wax ak askan wi ne leen affaire couleur la. wax dëgg yàlla kon mu war a xoolaat boppam askan wi war a xoolaat taxawaayam parce ku topp président Macky di tibb tànkam mhm. ba nga fay dem di tibb tànkam xooloo dëkk bi président Macky dem ndax dafa tàng wala ndax dafa sedd mhm. xooloo it oto ba nga war ba ngay dem mhm. ndax oto bi dafa weex wala dafa ñuul mais dem nga fexe ba tibb ji tànk weesu nañu fu ñu tolloo ay détails ci réew mi li ma tiital sëñ bi mooy. Mhm. ay kilifa. Mhm. ne ci réew mi gis ne askan wi sonn nañu lott nañu. Mhm. mais terewul ñu nekk ci ay détails. ñun nag ñi fare ak Khalifa Ababacar Sall ak Yewwi Askan Wi taluñu ay détails. li ñu tal mooy fexe nu ñu saafare jafe-jafe askan wi. pour saafare jafe-jafe askan wi nag aajowul nga bleu wala nga jaune. wala nga rouge déedéet aajowul nga teg ak picc wala ak teg teg ak mbox lu ñu lay mën a ràññee. li ci am solo. mooy njub gi nekk ci sa xol ak sa xel mm-hmm. mooy ànd bi ngeen nar a ànd teg ay sart yoo xamante ne ñoo lay nar a jëmale kanam sart bi képp ku ko jàngat mm-hmm. di gis ne lii kat pour mën a boole ñëpp la pour mën a yaatal couleur yi par exemple est-ce ah, waxtaan am na si couleur yi euh, boo xoolee ki defar sax charte graphique bi mm-hmm. nee na président Ousmane Sonko nee na ko dindi lii ndax dineen ne lii man sama sama samay couleur la mais tey boo xoolee verte bi mais day symboliser wax dëgg yàlla fi ñu bëggee jëmee réewum Sénégal. Mm-hmm. maanaam mooy ci naataange. Mm-hmm. picc bi boo ko xoolee mais source d'espoir la. Mm-hmm. picc bi nga xamante ne dem na bay yeewi euh, jëng bi président Macky Sall jël ay chaînes jëng ko askanu Sénégal. mais loolu ñun gisuñ si lan mooy ci jafe-jafe li ci ëpp solo. mooy ban programme la yeewi askan wi di teg. kan la yeewi askan wi di teg yoof pour mu mën a régler problème waa yoof créer une dynamique autour de lui. Mhm. pour Yoff mën a jëm kanam. Mhm. pour man mooy looy li ci ëpp solo. Mhm. mais du vert naag xonq naag rouge na. loolu yëpp amu ci solo. mais par concertation est-ce que si woon am maanaam ngeen amal waxtaan ba noppi doog a def fësal li ni mel. ñàkku ci xam nga président Bougane Gueye Dany moo fekk ci coalition bi. xam nga it boo ñëwee ci kër dëkk si fa. waa kër gi am na nu ñuy doxale da ngay ñëw nga ànd ci. te bu doon sax dañu ne euh, nii la yoo xamante ne jaay doole la démocratie amu ca kon boobaa ñu mën a wax mhm. mais encore une fois couleur mhm. warul mën a tax wax dëgg yàlla ñuy jeter de l'opprobre sur président Khalifa Ababacar Sall ak ay ñoñam mhm. te Bougane ma waxaat ko moo ñëwal boppam moo demal boppam moo invité boppam riigu pour bokk moo it fippuwaat pour génn waaw parce que parti démocratique sénégalais ñoom lu tax ñu génn waaw PDS moom xam nga ñoom saa su nekk lii du lay du luy bett nit ñi parce gis nañ bi ñu àndee ak ñun ñu war def man taxaw <laughs> ay jafe-jafe ay lënc-lënc parce que hmm. PDS dañuy politique ñoom lépp lu xew ci réew mi dañuy bëgg a nekk le fil conducteur hmm. maanaam locomotive biy tiré mais nag weesu nañu euh, par exemple PDS ñoom ah, liggéey nañ loolu ci wàll bi gis nañ ñoom ñoo nekk première opposition parti socialiste fële hmm. Senghor ba muy nekk ak Abdou Diouf PDS du parti bu ndaw par exemple APRIS parti traditionnel la est-ce que bu ñëwee seen coalition ngeen bëgg ko jox yeneen euh, second rôle yi est-ce que loolee tax second rôle amu fa partage équitable des tâches moo fa am. ci ni ma xamee Khalifa Sall ak ni muy liggéey du maanaam néewal doole kenn. Mhm. mais xam nga nag PDS bu ñëwee day bëgg nag moomee jàng yi appauvant te loolu nag weesu nañu loolu. Mhm. li ñu toll mooy ñu boole suñuy loxo bokk ndey bokk bàyyi dem liggéey. Mhm. ñi am doole suur ñi amul doole wàññi seen cër cëral leen. foofu lañ toll. xam nga ku dul fàtte sa bopp. ku dul fàtte sa bopp. wax dëgg yàlla doo mën a dëgg ak kenn. te loolu am nañu yaakaar nag ne dinañ ñëw parce que man ci yoof tey par exemple li ñaan mooy ñi ànd ña fa rek ñëw jàppale ñu. Hmm. ànd ak ñun ñu doon benn say. mais ñoom taxawal nañ seen coalition. Hmm. PDS ak waa jot na. Hmm. Euh, est-ce que dinañ ñëw te ñoom taxawal nañ seen coalition ba noppi yéen seen bëgg-bëgg ñoom tamit loolee mooy seen bëgg-bëgg. am maximum de mairie fii si Dakar ak à di du pays. par exemple ci coalition Yewwi Askan Wi naka ngeen di tànnee mairie yi. waaw xam nga day am candidat. Euh, candidature candidat à la candidature mhm. waaw maanaam ku nekk tey am nga sañ-sañu mhm. yëkkati sa loxo te loolu aussi ci vitalité démocratique la bokk mhm. mais nag ba ñu demee ba ca cappaandaw nga ba ñu war a defar liste yi dañuy xool ci kan ci ñi taxaw mu ëpp atu politique peut-être ñu teg ay critères ñëpp tënku ci ñu tànn kenn waaw mais nag du doon rek fukki parti ñoo fi nekk juróom-ñetti parti yi ay parti yu ndaw dañuy samp kenn rek kooku dem déedéet lépp dañ koy teg ci démocratie ak objectivité hmm. maanaam xam ne lii diw mii bu ñu ko investir dëkk bi yoof di leen gis boppam ci moom donc loolu yëpp c'est extrêmement important te ñu nit dañ ciy veiller parce que ay at a ngi nii ñu ngi nekk ci politique am lu ñu ji ci lu bari ci yoof hmm. te nag dafa jot wax dëgg yàlla ma wax ko sama baat ci kaw hmm. waa taxawu Sénégal yoof jëlaat seen cër ci échec politique ak discipline ak yar. Mhm. ak ñëpp pour ndam mën a am incha allah. Mhm. comme ni nga ko waxee par exemple est-ce que du am conséquence ci parti yi ndaw yi ndax bu ñu xoolee nga ni euh, localité bu nekk fa ëpp doole rek moom lañ fay teg duñ ko teg par exemple ni parti bi moo war a jiite. Mhm. Euh, gox bee parti bi moo war a jiite gox bee loolu est-ce que par exemple du tax ba seen coalition bi ñenn ñi xamante ni gisuñ seen bopp ñu retiré wu. non non naa la mën nga dem gox boo xam ne dañuy teg candidat. amaana ba ñun ñu am doole. am man nañ bañ am ci ci gox sàngam mhm. bon candidat mhm. mais kenn ku ne suñu biir mhm. am sax nekk ci parti bu ndaw am la bon profil mais loolu ci li ma jàpp man rien ne s'oppose à ñu teg ko mais nag li ma wax rek mooy nañu teg de bon candidats qui peuvent créer des dynamiques autour d'eux et fair gagner la liste Yewwi Askan Wi te it waruñ ko tënk sax rek ci boy politique yi dañ ko war a tijj société civile bi dugg ci donc loolu lu ci am solo lay doon xam nga élection locale nawetaan la. Mhm. élection gox-goxaan la. du rek way politique yi ñoo war a ànd mais tous les acteurs communautaires maanaam ñi nekk ci gox goxaan yi mhm. di ci am taxawaay ci wàllu santé mhm. ci wàllu sport ci wàllu diine dañ leen war a jël intégré leen ci li nga xamante mooy dispositif politique bi te buñ ci gisee profil bu mën a am solo ah man de bu ma gisee ku ma ëpp atu sur le plan politique sur le plan jaamu soxla yoof ëpp ma expérience politique. Mhm. ah dañ ko ciy bàyyi mu dem. da ngay retiré wu ànd ak moom. waaw waaw bu dee gis nañ ko. buñ ko mhm. gisul dañuy taxaw xeex. mais pour le moment est-ce gis nga ko. ah en daal ñun jàpp naa ne. bi ñuy politique yoof 2007 mhm. ba tey ñun ñuy composé opposition bi tey ñu ci bari wax dëgg yàlla euh, amu nekk nekk guñ ci woon wala buñ ci nekkee lu néew lay doon te nee naa la kañuñu suñu bopp mais nag bu waxtu génne bilan jotee ci liñ jot a liggéeyal Yoff on sera très à l'aise maanaam duñu rus hmm. duñu sëgg pour ne ñu liggéeyal leen Yoff hmm. dem nañ ba sacrifier lu bari ci suñu dund pour yoof te hmm. loolu wax dëgg yàlla on l'a par amour pour Yoff maanaam cofeel gu rëy gu ñu am ci Yoff ak it par devoir comme ni ma la ko waxee sànq rek euh, sa fu mu tegoon tànkam yow it ndaw mi jëm fa teg sa tànk te ñun bu ñu juddoo ba tey ba xamaku ba commencé dox ñu ngi servir Yoff. yéen bàyyiwu ñu ba élection jot nag ñu ne dañuy am mm-hmm. ambition pour dëkk ñu nga ngànk coalition bi muy Ousmane Sonko waa Pire waa Khalifa Sall. Mm-hmm. est que ñoom baaduñu ngardaajoo yëf yi ci élection locale yi jël seeni élément rek teg leen ci bopp localité. déedéet dinañ ci dem ak générosité bu rëy te mm-hmm. maire rek ci li ma jàpp. Euh, warul mën a nekk focus ñëpp. y a des postes d'adjoint au maire. maanaam bureau municipal lay am te ku xam. bëgg liggéeyal sa réew bëgg liggéeyal sa dëkk mhm. di nga weesu gouvernance individuelle dem vers une gouvernance participative mhm. maanaam gouvernance boo xam ne ñëpp ñi tënk mbir mi ànd ci war nañ si mën a gis euh, seen bopp mhm. donc weesu nañu fu benn nit rek nekk ci boppu maire bi di buum di buum mi di def lu ko neex loolu ñun sax dañ koy bañ waaw donc am nañu yaakaar ne nous allons vers des consensus forts pour mën a nag teg les meilleurs profils ci bopp collectivité a war askan wi gis seen bopp ci ñun suñu doxalin. lu ci mhm. am solo la parce que weesu nañu wax dëgg yàlla fu ñuy nag ute nguur di pàccoo ak di séddoo. Mhm. waaw loolu moom war nañ ko jombale suñu bopp te am jom nag dem liggéeyal askan wi. Mhm. gis nañ Khalifa sàll mi nekkoon maire ndakaaru moom dañ ko fa euh, jëlee ndax dafa amoon jafe-jafe ci wàllum yoon. moom naka lay demee ci élection yi. waaw Khalifa Sall ba tey kaam il n'est pas électeur il n'est mm-hmm. pas éligible te loolu si li ñuy war a xeex lay bokk mm-hmm. te incha allahu rabbi mm-hmm. li ko war mooy taxawal coalition indi expérience politique am ci euh, li nga xamante ne moom la ñuy liggéey liggéey te moo ñu koy defal ndax Yoff par exemple fu ñu toll ñun dañ koy waxtaan ak moom mu ñuy suy jox ay xalaatam donc euh, ku lay indil xalaatam gratuitement kooku mënoo ko fay te Khalifa Sall nag weesu na nag wax dëgg yàlla collectivité territoriale parce que 96 ba tey mu ngi ci woon ci collectivité territoriale yi di liggéey li ñu ko yéen nag mooy jiite réewum Sénégal incha allahu rabbi mhm. jiite réew mi te ba léegi mu ngi am euh, jafe-jafe Euh, ci wàllu yoon. Mhm. boobile sax euh, coalition Ousmane Sonko. Mhm. PUR ak euh, Khalifa Sall gis nañ coalition bu am doole la. Mhm. mais seetlu ngi nag moo di élection yu mujj yu ñu defagoon fii ci Sénégal ba léegi Benno Bokk Yaakaar moo koy gagné. boobile sax coalition est-ce que dina am kattan pour mën a faire face ak coalition Benno Bokk Yaakaar buñ ko taxawalee ba léegi gis nañu daanaka tasul te coalition yi ñu fi taxawaloon yëpp laataa ñoo yegg ci élection rek day am problème leadership mu daal di tas. waaw xam nga xam nga benn bokk yaakaar li ko njëkk a suuxat mooy c'est une coalition d'intérêt mhm. lijjantiw ñu ñoom lu ci bari jafe-jafe askan wi ñoom nuñ fa nekk ak lu ñu ciy am loolu mooy seen problème boo xoolee tey parti socialiste bu jëkk ba mhm. jafe-jafeem yëpp mooy moom naka lay séddoo ci nguuru benn bokk yaakaar mhm. donc nguuru paacoo lañ ko def partage du gâteau ñun nag loolu lañuy bañ ñun bu gâteau di am gâteau askan wi lay doon askan wi cëral ko boppam séddaleel ko boppam waaw ñun nag li ñuy suñu wareef rek mooy fexe ba askan wi yëpp ami gâteau mais pas ñun woy politique yi ñu am gâteau bu ñu dugal suñu biir biir yi mhm. di ko séddoo loolu gàcce la mhm. te wax dëgg yàlla war nañu weesu ñun Afrique fu ñuy toll di séddoo alalu askan wi. Mhm. loolu it faaw ñu wax ko te dee. Mhm. ku bëgg am alal demal nga liggéey yi ko comme ni ko suñu mag Barthélemy Dias di defee. Mhm. boo koy wër ndakaaru weekend doo ko gis mu ngi ci toolam di bay di yar ay ginaar di dundal boppam. loolu la soxla ci njiital politique. na nga mel ni Khalifa Sall am sa cabinet bopp. di mhm. liggéeyal sa bopp sa xam-xam nga koy mën di amal sa bopp. Mhm. mais di yaakaar ci politique pour dund loolu gàcce la ci. ndaw réew <laughs> mais loolu am na solo trop mais coalition bi est-ce que am na ay jumtukaay wala sax doole boo xamante ni daal mën na daan coalition benn bokk yaakaar. am na ko. par exemple si yenn ci yenn nit par exemple ngeen mise nii boo leen demee ci mairie bi comme Yoff. Uh-huh. yow mi bëgg jël boobu la maire est-ce par exemple yow. am nga ay moyen wala sax ay outil wala sax mbooloo bi nga xam daal mën na faagagal Abdoulaye Diouf Sarr naka noonu ci yeneen localités yi nekk si Dakar et à l'intérieur du pays Abdoulaye Diouf Sarr day alal rek la ñu ëppale mhm. alal rek la ñu ëppale te bu mu faloo lay doog a sax nangoo génne alal di ci campagne pour wan leen rek ne gars yi dañuy falu utiliser alalu askan wi pour maintenir seen nguur mhm. mais tey ñun Euh, nee naa la 2017 dem nañu xeex ak suñu moyen bopp. Mhm. jël deuxième gagné centre de vote bi gën a mag Yoff muy école de Yoff Jàmmalaay. Mhm. gagné Ouest Foire gagné Cité Jàmmalaay Djily Mbaye. Mhm. Ouest euh, Nord Foire it ñoom ñu am ci euh, par exemple bu ñu ci amee juróomi bureau ñu nit la ca des ñu jël ko. maanaam juróomi it ak lu teg. donc pour vous dire que ne élection du xaalis. mais askanu senegal ñooy arbitré te askanu senegal ñëpp gis nañ. nattu bi ñuy dund jamono jëpp ku ci añ dooreer gis nañu ndaw ñi amatuñu yaakaar ci réew mi di jël gaal di dem bitim réew. loolu mhm. mooy wane ne amatuñu espoir. Mhm. ci ki fi nekk. Mhm. mbënd mi ñi ñi gis nañ ni ñu sonne ni ñu sonne ni askan wi sonne. ñëpp gis nañu li xew ci banlieue bi. donc tey askan wi la ñuy woo ñu jël seen responsabilité. xam ne président Macky Sall fukki at ak lu topp mu ngi fi mais mënul saafara dara ci jafe-jafe. askan wi donc jot na nag tey population bi jël seen bopp en charge ci gox-goxaan yi pour nag pouvoir impulser maanaam suuxat. dynamique gu développement. ñu mhm. mën a jëm kanam. Mhm. laataa ñu àddu sax ci coalition taxawu Sénégal ci coalition Yewwi Askan Wi ba tey par mhm. exemple coalition bi lan moo ko tax a jóg ci élection locale yi képp la yem wala dafay doxal ci élection législative yi ak présidentielle ci charte bi ñu génne. biral nañ ci ne li ñu bëgg mooy lii mu weesu. élection locale. Serigne Moustapha Sy it wax na ne. lu ñu bëgg mooy mu weesu local yi donc loolu moom nëbbatuwuñu si mbébét bi mooy fexe ba dem législative am une majorité confortable à l'Assemblée nationale mhm. nekk nag pas def fi nag li gars yi daan cohabitation mhm. mais def une gouvernance concertée mhm. maanaam gouvernance boo xam ne diggante euh, Assemblée nationale maanaam pencum ndawu askan wi ak exécutif muy nguur gi day am ak déggoo pour nag contrôle sax di man a am ci li nga xamante ne moom la exécutif bi di doxal donc loolu ci mbëbëti la bokk mais nag loolu moom faaw ngeen am majorité. waaw def li ni loolu nag la ñuy mëbët te ñu ngi ciy liggéey. Mhm. liggéey bi nag dina tàmbali ci nii mm, euh, ci local yi jëmee ci législative yi. Mhm. mais nag bu ñuy dem présidentiel nag kenn ku ci ne nag dañu ne am nga sañ-sañu. Mhm. nekk président. am nga sañ-sañu nekk candidat te loolu li tax sax mu baax parce que type d'élection yi day changer. législative ak locale scrutin à un seul tour la. Mhm. maanaam benn tour la majoritaire ku raw. raw raw gàddu lay doon. boo demee présidentielle day am second tour. Mhm. donc ñun engagement bi ñu jël mooy ku ne na doon candidat ki si ëpp ay poñ ba mën a jàll deuxième tour ñun ñëpp ñu dem bootu si am jàppale ko. Mhm. te nag li ci am solo mooy dañuy àndaat ba 2024 lépp lu jëm ci wàllu processus électoral ñu doxandoo ko waxandoo ko jooyandoo ko kaasandoo ko. incha allah. coalition taxawu Sénégal bu Dakar seet nañ fa ay choc des ambitions mhm. maanaam laata sax élection locale yi di ñëw ku ne di di biiral ni de dafa bëgg a nekk benn maire <coughs> benn localité seetlu gi nag moo di mi Dias dafa génn rek ni moom dafa bëgg a jël ville bu Dakar mhm. alors que Soham Wardini mu joxoon maire Dakar yéen ñëpp yéen a bokk coalition boobu ban gis-gis nga si am est-ce que du am jeexintal ci seen coalition bi du am benn jeexital bu jafe ci coalition bi parce a teg ci mhm. bopp ndakaaru te dañ koy saytu it ba xam le meilleur profil mhm. comme ñu ko waxee jiital ko te euh, gis nga ñun mhm. dañuy def lu méngoog suñu doxalin président Khalifa Sall 2014 euh, ba 2017 jàpp nañu ne mu ngi benn bokk yaakaar ba bu mu ciy génn mais dañu ne woon war na mën a nekk candidat pour élection présidentielle yi te teeruloon ñu ngi woon moom mu ngi moom mu ngi woon benn bokk yaakaar parti socialiste mu ngi woon benn bokk yaakaar donc ñun du duñu empêcher nit mu wax bëgg-bëggam ci ne dafa am sañ-sañu nekk candidat. Mhm. li ñuy li ñu li ñu li ñu taxawal Khalifa Sall xeexal ko ba ñu dàq ñu parti socialiste. Mhm. mënuñ ko bañal Barthélémy Diaz. Mhm. je le répète encore une fois il est dans son droit légitime. man mii bu ma ci toll woon tey. yoroon commune bu mel ni Yoff ñaari mandat mhm. bés bu ñu nee mairie Dakar dama yëkkati suma loxo mhm. bàttali mu yëkkati ma yëkkati keneen yëkkati mhm. loolu mooy vitalité démocratique te loolu yàqul dara su suñu diggante ñun naturellement aussi am na droit yëkkati loxoom waaw fii képp ku bokk ci taxawu Sénégal nee naa la dama toll dama ci tolloogul rek mais bu ma ci toll woon mhm. ngeen xam ne wax dëgg yàlla nag xeex bi dina dëgër dina neex ndax damay yëkkati suma loxo ne dama bëgg a yor Ndakaaru mais lépp est-ce que par exemple waroo leen see waxtaanal seen kilifa ba pare laataa ngeen di bëral seen ambition personnelle yi muy Khalifa Sall non xam nga ambition bu dee dañuy politique te nit ñi mënatuñu am ambition bu yeboo nañ tas parti yi mhm. nañ tas coalition yi dem gis incha allah ça finira autour d'une table. Mhm. maanaam moo tax man du ma ci sax addu addu yu gudd. Mhm. parce que xam naa fi jëm. Mhm. xam naa niñ koy doxalee xam naa et fa jeexital ba. moo tax man li ma ci ëppal solo rek te li may wax ndaw yi mooy nañ concentré ci suñu objectif majeur. mooy gagner commune parce que ak comme on attaque ville de Dakar. si personne ne gagne chez on gagnera pas la ville. mais si tout le monde gagne les communes maanaam bu ñu amee ndam ci commune ba teg un candidat qui puisse avoir une bonne dynamique à Dakar mais it fet fexe ba am candidat yu wóor yu dëgër ci commune yu mën a gañe mm-hmm. parce que am candidat bu baax dakaar te gañewoo commune yi moog zéro ñoo yam mm-hmm. waaw par exemple Bamba Fall moo ngi ànd ak yéen ba léegi wala. waa ci kàddoom ak waxam ak li ñu mujjee gis mu taxaw ci bi ñuy samp yeewi askan wi jàpp nañu ne mu ngi ci biir coalition yeewi askan wi. mais ci ay action par exemple seen réunion yi coalition taxawu Dakar moo ngi assister wala. waa réunion bi ñu mujjee assister ak président Khalifa Sall jiite ko gisoon nañ ko fa. Mhm. Mhm. Ah, ah, ba tey dañuy des ci wàllu actualité par exemple li ñuy dese ci waxtu daanaka bëriwul. Mhm. bi. yokk lool ba askan wi di biir euh, conséquences yi mm-hmm. euh, amuloon nañ sax waxtaan ministre bi njaboote wàll bi ba am na ay tax yu ñu wax ni dañ koy wàññi ba léegi nag ni ki tey kuréel yi fas euh, fare ci société civile bi dañoo bëggoon amal manifestation ni ki démb muy ñoo lànk ñu arrêté ko ni tey sax waa mouvement Fra France Dégage doon nañ amal manifestation te Géejawaay mm-hmm. mais dañ ko introduire ba xibaar yi ñu mujj tegoon nañ loxo Guy Marius Sagna mm-hmm. ci wàllu denrée alimentaire yi yow en tant que woy politique ban xalaat nga si am loolu du ñu waroon xaar la. Mhm. parce que récession dafa am ci àdduna bi. Mhm. maanaam wàllu euh, Covid bi dafa gàllankoor lu bari. ci mhm. transport maritime bi. dafa gàllankoor lu bari. ci fret bi. donc loolu nguuru Sénégal waroon na ko xam. ne fii la jëme fii la jëm te loolu wax dëgg yàlla euh, li doon wareefu nguur gi. mooy bu lii amee. ñu wàññi dundinu état bu Sénégal maanaam. maanaam train de vie bi. train de vie bu nguur gi ñu wàññi ko. Mhm. nga xam ne nag yenn taxi yi mhm. dinañ ko teggi. Mhm. pour nag war a mën a jëm ci lu mën a yombal askan wi seen ak dundin. mais gis nañ ne bi président Macky Sall toogoo ba léegi ak tey njëg boo jël yokku na. te wax dëgg yàlla euh, ci programme am ci programme am. yoonu yokkute. moom waxoon na ci ne. ah carburant bi sax bi nga xamante ne ñu ngi koy jëlee fii di ko yóbbu Mali moo gën a yomb Mali ka Sénégal. Mhm. que dina def ay jéego pour wax dëgg yàlla loolu man wàññeeku mais nag li ko yokk sooxee mooy mauvaise gouvernance mhm. maanaam alalu réew mi mu ñuy pasar pasare ay nitam yor alal di ko wasaare ci askan wi saa su nekk di entretenir des clientèles politiques. Mhm. donc loolu yëpp tey reddition des comptes bu mu doon wax gouvernance sobre et vertueuse bu mu doon lépp ay ndaxe mbaay la woon. daanaka kon gisoo ci dara. déedéet gisuñ ko ci. gisuñu ak njub. ci doxalinu nguur gi. Mhm. wax dëgg yàlla te la mu waxoon nit ne gouvernance sobre day am. Mhm. wax dëgg yàlla ah ñu ne gisuñu ko fan yi weesu tere nañu woon jënd ay oto mais tey boo xoolee oto administration yi ëpp na lu ëpp juróom benn téeméer. Mhm. te am na ay kuréelu administration bi yu fi nekk soxla ay oto te amuñu ko. donc moo tax mooy la ma la wax rek kumba am ndey ak kumba amul ndey moo am ci doxalinu coalition benn bokk yaakaar bi nga xamante ne moo amee réew mi mhm. te loolu nag jot na nag askan wi taxaw mhm. waxuñ nag ñu taxaw yàqaate mais taxaw ci fulla ak fayda jëli ji seen carte électeur dem votel ñi nga xamante ne mooy les forces de yeewi askan wi mhm. ndax ñu mën a yeewi jëng bi leen nguuru président Macky Sall jëng Seydina Issa Laye Samb ñoo ngi ci njeextalu émission gox bi ci rajo réew mi FM 97 point 5 daanaka ponk yi ñu waxtaanee bëri na lool ñu la nga tàggatoo ak auditeurs yi waaw dañuy sant di leen remercier ci dalal bi bu baax. di mhm. ñaan yàlla yëkkati rajo bi. Mm, di lancer un appel à la jeunesse. Mhm. du Sénégal. Mhm. ñu assumer seen responsabilité ndax tey boo jëlee téeméeri sénégalais yu nekk. lu ci ëpp ci ndaw ñi. li ci ëpp ci réew mi ay ndaw lañ. juróom benn fukk yi. ci téeméer boo jël ay ndaw lañ. donc jot na nag ñu xippi assumer suñu responsabilité historique. pour nag mën a teg réew mi ci yoonu njub. Mm-hmm. ci yoonu soxaliku mm-hmm. ndax ku ndaw ñi àndal nga gañe mm-hmm. donc ñun ndaw ñi nañu dem fare ak ñi nga xamante ne jàpp nañu ne ñu ngi bëgg a teg réew mi ci yoonu njub président Khalifa Sall nu mu yore woon Ndakaaru ñëpp gis nañu ko ci ak njub ak leer la ko tege te coalition bi mu teg ànd ak président Ousmane sonk ak PUR jàpp nañu ne ci tànk yooyu la nekkaat maanaam njub ak servir sénégalais yi yoofit maa ngi ñaan waa yoof ñu yeewu ndax ñu mën leen a yeewi ndax ñu mën a teg dëkku yoof wax dëgg yàlla ci yoonu suxaliku te bàyyi njubadi ak clientélisme ah yaa ma neex ga fa am mhm. loolu daal la ñu amoon ci kàddu yu ñuy wax mhm. di leen sant di leen gërëm mhm. di nuyu mboolem auditeuru euh, réew mi FM di nuyu bépp jeune bu nekk ci réew mi di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, Seydina Issa Laye Samb di responsable jeune taxawu Sénégal bu Dakar nekk candidat mairie bu Yoff di ko souhaiter bon chance ci élection locale yi ñu dëgmal ci janvier euh, atum 2022 seen émission gox bi ki fare woon ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo ci wàllu coordination bi Fatou Baba Fall di ko jaajëfal di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf